coalition Khalifa président ñoo ngi amal ay ndaje ngir waxtaan ak askan wi si loolu la kii di Barthélemy Dias yëkkati ay kaddu pour justifier li taxoon ñu bokk si dialogue bi passé te mu juróon ay coow tey kii di maire de Dakar di ñaawlu doxalinu ñenn si membre yi bokk Yewwi Askan Wi mu jàpp ni ñoo ngi négocier si suuf ak Macky pour ay avantages. ci Yewwi Askan Wi ñëpp a mënoon bokk ci élection. sauf Khalifa Sall. wax dëgg yàlla élection présidentielle noonu lañ mën a mën a parce que politique moo tax ñu génne la ci langue bi tey dafa am ñuy yolleeku guddi ci ñuy waxtaanee seen bopp ak seen intérêt wante waxtaanee wu ñu ndaje bi mu ngi am Grand Yoff ki jiite commune bi bokk ci parti bi di taxaw Sénégal moom di yëgal seen njiit jafe-jafe yi ñuy jànkonteel daaru dugg lewlu dem xale la dem stimilinaire amuñu ay këytu kër vingt cinq famille ñu ne ne ñu ñu ngi jóge seen kër janvier bi passé lañ joxoon waaye millionnaire télé ñu ngi leen dàq si mbedd ce n'est pas normal ñu am yaakaar si yow Khalifa Sall di xam le dina taxaw ngir dàkkal li ni mel millionnaire yàlla bii Arafat bii ak yeneen quartier yi chaque année on a des ma ni loolu moo war a dëñ kenn du fi ñàkk ma falu rek mu jeex tàkk ci kàttanu yàlla muy woo ay militants ñu gën a taxaw ngir ñi mën a continuer seen i campagne électorale ngir ñi mën a gagner élection yi